salaamaaleykum <coughs> maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di ñëwaat euh, si benn vidéo bu xam ne nii ay panneau de signalisation laa si expliqué dinaa def sama kéemtalaay kàttan xam naa dina xaw a gudd mais dinaa expliqué panneau yëpp yi nga xam ne am naa ko si fi mu nii euh, panneau yi bu si nekk am na numéro exemple instant bi damay commencé bi si kaw mooy e bi. ba si F quatre-vingt-dix-neuf A su paree jël bi si topp jël bi si topp jël bi si topp ba mu jeex donc euh, voilà di leen wax ne panneau e bi moo nekk si kaw moom mooy euh, boo ko gisee naan fii amoo droit gaare fi panne bi loolu lay tekk mun na nekk sa gauche mun na nekk sa droite mais fu mu nekk rek jàppal ne côté bu mu nekk amoo droit gaare bu dee e bi moom moom amoo droit gaare si ñaari côté yëpp maanaam fu mu nekk moom amoo droit gaare gauche amoo droit gaare droite bu dee E5 bi maanaam ñi ngi wax ne bu fekkee dañu nekk si mois du 1 du 1 ba. ba quinze amoo droit gaare sa côté gauche du quinze au trente amoo droit gaare sa côté euh, droite maanaam dañ ko dañ dañ koy séparer genre table bi boo gisee dañ koy séparer maanaam période bi fii nga war a gaare période bi waroo fi gaare dañuy xaaj mois euh, mois bi bu fekkee dañuy xaaj dañuy xaaj kii bi dama jum dañuy xaaj euh, weer bi weer buñ ko xaaj xaajee benn côté bi mooy un ba quinze côté bii nga war a gaare quinze ba kii côté bële nga war a gaare bu dee bu dee beneen tableau bi moom daanaka moom mooy continuer beneen mois bi maanaam du un au quinze fii c'est interdit du seize au trente et un côté bii c'est interdit donc table yi noonu la noonu la noonu la noonu lañ ko noonu la noonu la looloo tax ñu bind ci chiffre chiffre chiffre mois bi lay tekki bu mooy E5 e, e bi E7 ak E11 bu dee E11 bi mooy bi nga xam ne moo mujj ba quinze amoo droit gaare sa côté gauche 16 ba 31 amoo droit gaare sa sa côté droite donc souvent boo ñëwee day nekk ay zone yoo xam ne nii côté bee mun nga fa gaare mais dafa période boo fay gaare côté bi am na période boo fa gaare exemple bu nekkee bu fekkee E11 bi la ñu nekk si tey tey le mois bi tey la lan tey la huit xaw ma tey la tey bu dee tey la sept dangay xool table bi un ba quinze amoo droit gaare sa côté gauche kon un ba quinze waroo gaare sa côté gauche kon yaa ngi si biir un ba quinze maanaam sept un huit un deux ba ba quinze amoo droit gaare si sa côté gauche donc beneen côté bi nga war a gaare bu ñu demee ba mu passé le quinze le seize le dix sept dix huit amatoo droit aussi garer si sa côté droite côté gauche nga war a garer donc euh, tableau yi souvent euh, tableau yi souvent fi muy nekk rek maanaam côté bi da nga fay garer tey côté bi doo fa garer si yenn zone yu xat yi nag lay nekk si route yi maanaam ko ñu ko ñu ndaw yi si lay nekk tableau bi si topp mooy E9A boobu mi ngi nekk tableau parking maanaam indication la li nga xam ne nag moo jar a xam Euh, tableau bu bula saa yoo ko gisee rek xamal ne da lay lu si bëri da lay lan moo nekk fële lan moo nekk si kanam lan moo nekk yu demee noonu noonu la lay indiquer maanaam E9 bi E9A amoo parking la E9B parking la mais oto bu ndaw E9C parking la mais camionnette E9D parking la mais bus e 9 maanaam boo gaaree si kaw trottoir bi ngay gaare booy gaare mun nga yéegal sa oto si kaw trottoir bi mooy un neuf C un neuf E booy gaare si kaw trottoir bi ngay gaare bu dee un neuf T booy gaare dangaa war a gaare yéegal sa benn oto si kaw trottoir beneen oto bi si suuf bu dee un neuf maanaam amoo gaale amoo droit gaale si kaw autoroute si kaw trottoir bi dangaa war a gaale si tali bi donc li may wax ni uh, table yi souvent mu nit mun noo gis mee du xam lu muy tekki parce que ni ñu ko dessiné nii la mooy E9E E9T e g ma répété waat ko E9E bi boo gisee si kaw trottoir bi nga war a gaare e, e t boo ko gisee tableau bi. maanaam danga war a gaare sa benn oto sa benn uh, roue oto si talibi sa beneen roue bi oto bi si kaw trottoir bi neuf G maanaam moo gaare si kaw trottoir bi si tali bi nga war a gaare bu dee neuf H maanaam uh, parking la pour uh, camping car yi ñi nga xam ne dañu yor ay camion yoo xam ne ay camping car la bu dee neuf T ñu bind si G4 loolu boo gisee maanaam boo fa gaaree da nga war a euh, génne benn kii bu ñuy wax mètre bu ñuy wax heure gaare dañ koy jaay si supermarché yi wala si boutique yi wala mun nga ko fu nekk léegi da koy régler bu dee da nga fa gaaree seize heures da nga war a régler à partir du seize heures ba seize heures demi bu fekkee da nga fa gaaree à partir du seize heures de demi da nga war a à partir du seize heures demi maanaam si diggante ñaari heures yi lay nekk entre seize heures seize heures et demi wala seize heures et demi euh, dix sept donc heure bi ngay ñëw ngay xool bu fekkee da ñëw seize heures donc seize heures nga koy bàyyi euh, mu commencé seize heures et demi jëm jëm jëm jëm dix sept bu fekkee dix bu fekkee seize heures cinq seize heures vingt fa ñëw wala seize trente seize demi nga koy def donc ñoom dinañ xam période bi nga fa gaare à peu près. heure exacte amu si mais pas parce que heure bi ñu nga ko war a def 16 heures la war a mën a doon 16 heures et demi 17 heures 17 heures demi 18 heures 18 heures demi mooy affaire parking yi bu ñëwee si tableau yi suuf muy tableau F moom laa doon wax pour signal signalisation indication la bu ñu bind police bi loolu da lay indiqué ne police yoonu euh, police bi sa droite la nekk flèche bi boo ko toppee dem si police bi. bu dee taverne bi tamit da indi indication mais indication dañ si defaale vélo lu tax ñu si def vélo maanaam yoonu velo maanaam booy dem taverne ak tëli vélo yoon baa ngoog bu fekkee am na so am na dama bii am na route velo maanaam mun nga dem taverne am na yoonu velo mais aussi mun nga fa dem ak oto mooy euh, F34B1 bi bu fekkee F34 B2 bi maanaam Tefirnu yoon boobu yoonu vélo la boobu moom mooy yoonu vélo mais bu dee F34 B1 moo nekk ci kaw jambul bi boobu maanaam mën nga fa dem ak vélo mën nga fa dem ak oto mais indication bi yoon bi noonu la bu fekkee bi ñu bind jambulu la mu ànd ak velo maanaam surtout touriste yi la exemple bu doon da ngay dem bu doon euh, musée la exemple dañ koy marron lay nekk maanaam fu ñu war a visiter affaire yooyu yoonu xemple bi yoonu yoonu musée bi mi ngi noonu moo tax mu nekk marron Aigremont tamit la même chose euh, mën na nekk musée mën na nekk site touristique mooy f cinq bi bu dee la bonne table bi moom moom yomb na restaurant <coughs> restaurant la wala kafe ndax restaurant la sax parce que kii ñoo tax fourchette yi ak kuddu ak kuddu bi tax donc loolu restaurant bu dee F F trente quatre euh, CD moom ak bi si kaw ñoo yam rek c'est juste indication wu Zambulu la mais en vélo bu dee bi ci kaw la Meuse moom mooy F cinquante sept bi boobu tamit indication la war na ne rivière bi foofu la nekk. bu dee F43 la moom day wane ne localité bi nga nekk ban zone nga nekk yaa ngi bu doon Dakar la dañuy bind dañ day nekk table zone mu nekk dakaar <coughs> bu dee F61 maanaam day wane ne fee mun nga ko woote téléphone bu dee table bii nag si autoroute la pour muy nekk au cas paanee mën fa dem woote téléphone F63 maanaam mooy essence soixante cinq maanaam hôtel wala foo wala foo mun a fanaan souvent euh, auberge mun na ko nekk mun na nekk hôtel mais souvent ay hôtel lay nekk euh, bu dee F soixante sept mooy restaurant bu dee F soixante neuf mooy café xaa mu ñëwaat si yéeg si kaw euh, si côté la Meuse bi maa si F cinquante et un doog a ñëwaat si F soixante neuf bi continuer S51 bi maanaam day wane ne indication boo euh, cent mètres boo doxee cent mètres escalier andi fa bu fekkee F51 boo doxee aussi cent mètres maanaam sa gauche ak sa droite euh, escalier nga fa bu dee da ngay wàcc wala ngay génn maanaam yii mun na nekk si ay tunnel genre tableau yii ñu la wane ne boo gaaree nga dox cent am na escalier bu fa nekk nga génn si escalier yi affaire yooyu bu dee F53 maanaam mooy. mooy euh, kii maanaam mooy hôpital bu dee F cinquante cinq ambulance wala kii euh, nu mu tuddati urgence urgence F cinquante neuf A mooy parking F cinquante neuf B mooy zone parking bi F cinquante neuf C mooy parking dans cent mètres cent mètres am na parking bu fa nekk bu dee boo doxee cent mètres am na parking bu fa nekk bu fekkee F cinquante neuf T maanaam mooy euh, parking bu ànd ak parking bu vélo si direction bii boo fa jëmee di nga gis benn parking bu am en même temps parking bu vélo ma ñëw si café bi F soixante neuf maanaam si suuf après restaurant bi maanaam moo boo gisee maanaam mooy. Euh, café bu fekkee F F soo gisee maanaam fi nga nekk noonu zone boo xam ne ni euh, jege na ay parc wala zone parc la place parc affaire yooyu donc bu fekkee F maanaam gare bu fekkee F soixante maanaam auberge auberge a ngi foofu auberge des jeunes wala yu demee noonu fu nit mun a noppali ko bu dee F soixante dix sept maanaam foo xam ne mun nga fa dem laajte ay information bu dee F quatre-vingt-dix-neuf A maanaam zone boo xam ne nii ay nit ñoo fay dox maanaam oto wanu fa bëri wala boo fa dugalee oto dafa fekk nga dëkk fa te boo fay daw vingt kilomètres nga fa war a dox vingt kilomètres par heure maanaam danga war a raam zone résidentielle lay nekk oto waru fa dugg wala oto ñu fay dugg rek mooy ñu fa dëkk ay nit a ngi fay dox ay xale nga fay fo ay vélo nga fay fo loolu mooy tableau bu njëkk bi au cas ku am yeneen tableau yoo xam ne nii mën nga ma ko ok bëgg a laajte mën nga ma ko aussi envoyé wala mën nga bind numéro tableau bi ma xool ko ma ñëw si deuxième tableau bi waa tableau bii nag moom genre tableau yi peut-être di ngeen leen gis yu bëri tableau yi moom mooy tableau yi nga xam ne danger la danger la lay won ci kanam suñ ñëwee ci commencement bi ci kaw muy A1 A boobu moom boo gisee mooy booy jàdd ci sa côté gauche jàddaay bi dafa xaw a dëng dëng bu dëng bu boo xam ne nii foog nga ralentir pour jàdd loolu lay tekkil munoo fa jàddeeg yenn vitesse yi mun nga saaraani mun nga mbëkk dara moom moom loolu muy tekki ci sa gauche moom lay tekki ci sa droite mooy tableau a un B bi bu fekkee table A1C bi mooy yoon bi dafa def zigzag du yoon bu tàllal du yoon bu dëng mais di nga def zigzag waaw dem gauche dem droite genre Z bu dee li muy tekki nag si sa côté gauche zigzag bi côté gauche la nekk moom lay tekkiwaat si beneen bi muy en ED zigzag si côté droite lay nekk côté ndejoor ak côté càmmañ exemple boo gisee si côté ndejoor si yenn tali yi mun ngoo gis si côté ndejoor nga dem mu yàgg gis ko si côté euh, côté côté càmmañ bu fekkee table bi nga xam ne nii mooy la ñu bind dix pour cent maanaam yoon bi dafa def descente yoon bi dafa def descente mais descente bi dix pour cent la maanaam du descente yu garaaw yooyu mais def na descente descente bi moom moom la tamit a cinq bi yoon bi dafa nekkul descente mais montante la mooy A5 A cinq a a trois descente la a cinq montante la bu fekkee A7. 3 A 7 A maanaam yoon bi dafa ibbeeku woon exemple yoon bi ñaari oto munoon na si daawandoo mënoon nga doubler mais boo gisee mu nekk A da ngay xam ne yoon bi après day raccourcir dañ koy wàññi looloo tax boo xoolee table bi suuf gi dafa xaw a yaatu kaw gi tuuti mooy A set A bi maanaam tali bu tali boo xam ne nii exemple un mètre la woon mais am na foo xam ne dañ koy wàññi ba mu nekk cinquante mètres réduire nañ ñaari côté yëpp loolu day am si tali bu fekkee A7B bi maanaam day tali bi dañ koy wàññi mais ban côté la ñuy wàññi côté gauche loolu mooy différence bi bu dee bu dee A7A ñaari zone yëpp ñaari côté yëpp la ñuy wàññi gauche ak droite bu dee A7B bi côté gauche la ñuy wàññi bu fekkee A7C bi côté kii la ñuy wàññi <coughs> ndeyjoor la ñuy wàññi soo ñëwee soo ñëwee si table bi nga xam ne nii mooy euh, A9 bi maanaam fii zone boo xam ne nii euh, dafa am dafa am pont te dafa am dafa am kii euh, nu ñu ko tuddee passage u passage wu pont la boo xam ne nii day jug day tijjee ko tëju waaw donc euro bi moom am na ay points yoo xam ne day yéeg bu bu bi jàll mais na fekk si suuf ndox la bu bata bi jàll mu wàcc bu fekkee A11 bi euh, passage la pour pour ay oto A11 bi mais tamit euh, pont buy tëjee ko tijjeeku la bu fekkee bu fekkee a a a kii bi a treize ñu ñëw si deuxième ligne bi a treize maanaam euh, kii la yoon bi dafa xaw a mel ni lu am ay pax dafa yéeg wàcc dafa yéeg wàcc a treize bi bu dee a quatorze bi yoon bi dafa doodaan la moom la ñuy wax doodaan maanaam da ngay yéeg wàcc bee nag moom dafa xaw a dafa ngay surux génn bii da ngay yéeg si kaw wàcc ñoom ñaar sorante wul bu fekkee a a bi a bi moom mun na mun na mi ngi signifié euh, tali bi mun nga si glisser maanaam tali bi c'est glissante waaw bu fekkee A17 bi nag boobu moom mooy attention foofu mun na am ay feu maanaam zone yi nga xam ne nii usine industrielle la mu am lu mun a tàkk ak yu demee noonu donc boo fay jaar bu fekkee à dix-neuf bi la boobu moom mi ngay nekk si zone yi nga xam ne nii dafa am montagne léegi lu tax ñu di def tableau day wane ne souvent ay ay xeer mun nañ jóge si montagne di wàcc si tali bi à dix-neuf bi bu fekkee à à vingt bi moom dañuy wax ne si kanam souvent si kanam nit mun na fa traverser nit mun na fa traverser danger la maanaam booy da xool mun nañ ne mun nañ mun nañ ko def fenn avertir la boo demee ba si kanam ñu gisaat table boo xam ne bu bula lay doon maanaam fii la nit di traverser bu fekkee A23 boo gisee maanaam foofu zone u école la A23 bi trente maximum nga fa war a daw ñu si bëri maanaam ay xale dañ fay traverser moo tax boo xoolee dañuy yoraale ay sac pour jàng bi si topp A21 mooy velo mun na fa traverser A27 bi maanaam ay animal mun na fa traverse lu mel ni kangourou bu fekkee A29 bi boo xoolee maanaam lu mel ni nag mun na fa traverse bu dee A31 bi maanaam boo xoolee si kanam am na liggéey maanaam liggéey koo gisee boo xoolee nit ki dafa mel ni ku yor pelle di gas di tibb di suul comme maçon rek A31 bi bu ñëwee si A33 bi loolu moom boo ko gisee rek xamal ne feu rouge feu fa fa mi nga am si kanam fa mi nga am si kanam bu dee a trente cinq bi soo ko gisee nga xam ne zone boobu zone aéro ay avion la maanaam avion yi mun nañ traverser si kaw aérien bi bu dee a trente sept bi mooy zone bi nga xam ne dafa bëri ngelaw ngelaw bu dee a trente neuf maanaam zone zone boo xam ne double double kii la double euh, double double sens la double sens la ñii dañuy ñëw fii nii ñii dañuy jàllee gauche ñii di jàllee droite da ngeen di daal bu dee a quarante et maanaam si kanam am na am na passage du terrain boo xam ne am na barrière barrière bi loolu lay fi maanaam sa ok bu fekkee à quarante trois foofu la train bi di jaar maanaam train mi ngi jaar foofu mais mun na fa nekk boo fa nekkee ça veut dire ngay nga def attention que ne peut-être amul barrière mais train dafay traversé bu fekkee a cinq mooy fi nga xam ne nii su lii moom foo gisee moom fi kii bi di nekk lay nekk souvent fi nga xam ne barrière yu train yi fa lay nekk fa lay nekk bu dee A a cinq rek dañ ko dañ ko doubler maanaam double sens la am na barrière am na am na barrière double sens bu fekkee A quarante neuf nag mi ngi nekk aussi passage u bus peut-être bus yi ñoo am priorité wala bus yi ñoom ñooy traversé bu dee A cinquante et un bi nag maanaam loolu mooy danger mais danger bi kenn munu ko mënuñu la ko faram-fàcceel soo ko gisee rek mun na am danga nga war a réduire sa vitesse mun na am tali bi dafa xaw a dëng mun na am maanaam moom am na lu mu lay signaler mais peut-être ñoom mënuñu ko définir moo tax dañ koy def chaque jour point d'exclamation maanaam am na danger si kanam mais danger bi munuñu ko bind mënuñu la ne lii la munuñu la dara mun na am lu nekk mun na ko nekk parce que lu ñu mënul bind rek ñoom munuñu ko bind donc dañ koy def danger mais nag loolu boo boo ko gisee da nga war a def réflexion que ne ah bu dee da ngay daw lu bëri nga ralentir pour. xam xam ban genre danger la peut-être mun nga doon daw cent vingt ñu def ko ci kanam léegi peut-être mun na am foofu ci kanam après bu ñu ko fa defee rek dañ defaat beneen signal bu lay wane ne foofu cent mètres cent cent kilomètres nga war a daw parce que tali bi dafa tuuti wala parce que tali bi dafa xaw a dëng yu demee noonu donc signal danger bi loolu nga koy jàpp que ne signal danger la mais exactement danger bi di écrire binduñu ko quoi waaw mu ñëwaat si tableau bi si topp. waa tableau bi moom am na solo xam naa dama koy dama koy arrêté fii après defaat beneen vidéo en même temps continuer ci tableau yi waaw tableau bi lu tax mu am solo maanaam tableau priorité la te priorité nag dafa jar a xam am na sax vidéo bu ma ko def boo xam ne nii ay priorité laa ci wax donc bu ñu ñëwee ci B1 bi maanaam boo ko gisee rek xawal na yow amoo priorité waaw boo gisee rek xamal ne yow fi nga jëm noonu amoo fa priorité bu fekkee B3 bi dañ ci def amoo priorité mais fan la fan la fan la priorité bi nekk dans deux cent mètres maanaam nga dugg si mbedd rek gis table B bi ba pare def si deux cent mètres maanaam boo dawalaatee dans deux cent mètres di nga gisaat si tàll bi ñu marqué ko ay ay euh, loolu lañ tuddee dans de requin donc flèche yi lañ tuddee dans de requin maanaam nu muy croiser nii donc boo gisee rek deux cent mètres benn bi maanaam dañ lay wax ne amoo priorité mais waxuñu la exactement fu mu nekk mais B3 moom danaan la dans deux cent mètres amoo priorité bu dee b cinq bi moom xam nga lu muy signifié stop mooy arrêt taxawal bu fekkee B57 bi souvent ñaar yi mun nañ ànd mun na nekk foo xam ne nii da nga fa nekk amoo fa priorité bu la neexee nga ñëw dara nekk fa nga mel ni lu xaw a ralentir tuuti jàll maanaam B57 bi mais mais bu fekkee B5 bu fekkee B7 bi la nekk b set bi moom c'est obligatoire dañ fa def stop si suuf bu paree dafa cent cinquante maanaam soo demee soo demee ba dans cent cinquante mètres amoo priorité non mais dafa am stop da war a taxaw ba pare doo ko bu fekkee yee nga xam ne defuñu si stop maanaam bu doon da nga ñëw di génn si benn mbedd amul benn oto bu ñëw mun nga ralentir gisoo oto nga dem mais bu fekkee. B57 moom c'est obligatoire booy def code de la route ngay def examen ñu bind stop bu yow nga xam ne nga war a taxaw bu fekkee dañ ko bind ñu stop ñu marqué ci benn ligne da nga war a taxaw parce que loolu explique naa wax sama priorité sama benn video bi nga xam ne maa si def priorité yi bu dee nag tableau bi nga xam mooy euh, B9 maanaam euh, route prioritaire la maanaam boo fay dawal moom xamal ne yaa am priorité gauche yaa am priorité droite bu fekkee nag b onze bi la. maanaam sa priorité fa la priorité route prioritaire bi fa la jeexee waaw moom moo tax ñu def si kii bu ñuul bi maanaam boo fa boo fekkoon da nga fa dugg ah ni ah priorité gauche ak droite yëpp maaxo ko moom donc oto buy ñëw gauche day taxaw oto buy ñëw droite day taxaw ngay daaw mais boo demee ba gis beneen bi B11 maanaam sa priorité jeex na fa donc danga nga war a xool ban tableau si tool bu fekkee B13 bi. maanaam boobu tamit day wax ne rek dans deux cent cinq dans deux cent cinquante mètres priorité à droit à route prioritaire bi fa lay jeexee donc amatoo priorité gauche amatoo priorité droite bu fekkee aussi souvent ñaari tableau yi ñooy ànd bu fekkee tableau B9 bi ak tableau B B B B B 15A euh, bi B 15B bi B 15C bi B 15D bi B 15 e yooyu tableau yëpp ñooy ànd ndax lan ndax yooyu fu ñu nekk maanaam tey jii bu fekkee daf P b maanaam route prioritaire dafa dafa am donc dañ ciy ajouté waale souvent tableau b quinze lan moo tax ñu ciy ajouté souvent B15 parce que B15 day wane ne am na mbedd bu génn gauche mais am na mbedd bu génn droite waaye nag ñooñu amuñu priorité yaa am priorité bu fekkee B15 bi danaa la am na mbedd bu génn côté càmmañ mais bo nekkul mbedd bu droit maanaam dafa mel ni lu lu genre genre benn dafa xaw a ni muy génnee bokkul ak maanaam nekkul mbedd boo xam ne nii euh, dafa jagonaal jàkkaarloo wuñu quoi dafa xaw a dëng ni muy génnee b quinze b bi bu fekkee b quinze c bi moom dafay droite donc mais yooyu yëpp amul si solo mu nekk gos mu nekk droite yow na nga xam ne oto bu fay génn yow amul priorité yow yaa am priorité loolu rek lay tekki. te boo ko gisee c'est juste pour wane na la am na mbedd bu fay génn maanaam b quinze bi B15B bi B15C B15D B15E yooyu yëpp B15 la nekk yooyu yëpp ñoo bokk li ñuy teg c'est juste mbedd yi dañuy dañuy wote ni leen defaree yii dafa ñëw rek tàllal direct si dara bi yii dafa ñëw xaw a mel lu catu yii dafa ñëw jaaree si côté kaw bi génn donc waaw loolu daal nga si xam B15 beeg BE bi ba si B15 B15A B15B B15C B15D ba B15E ak B15 euh, F ak B15 G ñoo bokk exactement lu ñuy tekk te ñoom souvent dañuy accompagner dañuy accompagner B9 bi ndax fu mu nekk rek da ngay xam ne foofu yaa fa am priorité léegi nag B17 bi moom leneen lay tekki moom mooy priorité à droite moom nag boo ko gisee nga xam ne bu fekkee dafa am kuy génn sa càmmañ moom moo am priorité yow booy dawal si mbedd yoo xam ne nii dafa am génnukaay gauche am génnukaayu droite nga gis table bi nekk sa kaaroog sa bët kuy génn droite nga may ko mu jàll ndax moom moo am priorité donc ma répété waat B9 bi ak euh, B15 bi ba BG B15A ba B15G ñoom ñaar souvent dañuy accompagner fu ñu nekk même bu fa B9 bi nekkul sax b quinze bi kese nekk fa wala bee 15 AB bi nekk fa wala bee 15 C bi nekk fa yow jàppal na rek ñu di génn say droite wala say gauche bu dee sa côté gauche la nekk bu dee sa côté droite yaa am priorité boo ñëwee nag si B17 bi nga xam ne amatoo priorité si sa côté droite léegi bu dee B9 bi nag ak B21 bi ñaar yooyu daanaka ñoo ñoo ñoom ñaar ñooy ànd nan lañuy àndee bu fekkee yow da gis B9 bi jàppal ne. côté bi nga nekk B9 bi nekk fa beneen côté bi B21 bi fa nekk maanaam yow sens bi ngay jugee B9 ba nekk fa beneen sens ba B21 ba fa nekk bu fekkee sens ba ngay jugee B21 ba fa nekk yow jàppal ne B B19 moo nekk si beneen sens bi loolu mooy lan li si li muy tekki mooy rouge moom mooy chaque jour danger rouge mooy chaque jour danger noir mooy. yaay dem exemple su ma ñëwee si B19 bi ma ñëw si tab ñëw di dawal oto jóge benn sens ñëw ba jàkkaarloog B19 bi man sama flèche moom mooy flèche su rouge bi kee di ñëw flèche am mooy flèche su noir bi parce que ñaar yi dañoo jàkkaarloo bii day ñëw bii day dem comme man maa nekk flèche su rouge lan laay wax ah dama war a taxaw kee moo nekk flèche bu noir dama dafa war a dafa war a dafa war a jàll simple rouge taxaw noir jàll bu dee rouge bi yàgg moo ma bokk fi ngeen jëm taxawal bu dee noir bi yàgg moom a bokk fi ngeen jëm demal moo moom mooy ñëwaat ci B21 bi rek B21 bi ku euh, flèche bu weex bi mooy dem flèche bu rouge bi mooy taxaw rouge moom taxaw si ñaari tableau yëpp dafay taxaw maanaam su ma ñëwee jógee benn yoon gis euh, jàkkaarloog tableau bu bleu bi bu dee si bu dee sensu rouge bi laa nekkee mel ni ku jëm si rouge bi kuy wàcc wala kuy kuy dem damay taxaw bu dee si sensu weex bi maag moom ñoo bokk sens bu ñu jëm damay dem léegi nag loolu moom c'est très important mais si yan route lay nekk mooy tal yi nga xam ne dañu réduir yoon bi. boo ñëwee rek fekk ñu réduire yoon bi rek euh, xamal ne ñaari tableau yi nga fay gis maanaam da ngeen di mayante bu dee yaa nekk rouge nga taxaw oto yi jógee côté bee moo ñoo ñoo nekk noir ñoom ñooy ñëw bu fekkee beneen tableau bi nga gis bleu bi euh, yow yaay bu fekkee si sens bu euh, flèche bu weex bi nga nekk yow yaay taxaw yow yaay dem weex bi yaay dem ña nekk si flèche bu rouge bi ñoom ñooy taxaw simple waaw xaar mu ñëw defaat beneen vidéo dama koy dutee partie deux trois quatre xam naa ni am na yeneen tableau yu ma si war a yokk mais maa ngi koy indiwaat si beneen vidéo bi bii nii maa ngi koy ñëw expliquer donc di leen wax ne maa ngi ñëw waaw euh, bon continuation comme d'habitude rek ñu ne génn la ñu def si suñu kéemtalaay kàttan def suñu xam-xam incha allah ba si beneen yoon jaajëf